أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام tey ñu ngi jël qissatu ñu ngi jël qissatu Shuaybu alayhi salaam Shuaybu kenn la ci yonent yi nga xam ne allahu subhanahu wa taala moo leen yónni jàngeen ci alquran yàlla mu ne wa ila madiyana axaahum Shuayba yàlla mu ne wa ilaa madiyana yónni woon naa ci dëkk bu tudd madiyan yonent bu tudd seen mbokk yonent bu tudd Shuayb ixtalafa al ulama fi nasabi Shuayb boroom xam-xam yi dañoo wuute ci askanu Shuaybu kan mooy papaam kan mooy yaayam ci ban famille la bokk boroom xam-xam yi dañoo wuute ci loolu qaala ahlu tawraat waa tawraat ñu ne soayibu sayfuun mooy papaam sayfuun ibnu ayfaan ibnu saabit ibnu madiyan ibnu ibrahim waa tawraat moom càllala bi càllala bi lañ jox Shuaybu ñu ne sayfuun moo ko jur sayfuun ayfaan moo ko jur ayfaan saabit moo ko jur saabit madiyan moo ko jur madiyan ibrahima moo ko jur kon bu fekkee càllala bi moo gën a wér kon Shuaybu sëtu sëtu yonti yàlla ibrahima la ibrahima mooy maamam wa qaala muhammad ibnu ishaq bindukatu siira bu mag la muhammad ibnu ishaq mu ne soayibu ibnu mikiyaal ibnu shajar ibnu madiyan ibnu ibrahim am na beneen boroom xam-xam bu tudd muhammad ibnu ishaq moom beneen càlla la beneen seen la nosale soayibu alayhi salaam waaye ci biir foofu di nga ko fekk ñu ne ibnu Madiyan ibnu Ibrahim kon li wér mooy Shuaybu dëkk bañ ko yónni muy Madiyan maamam moo ko sancoon bu tudd déedéet bu tudd Madiyan dëkk ba moom lañ tuddee Madiyan pourtant fii ci biir Sénégal sax am na benn dëkk bu ñu tuddee Madiyan Madiyan ci boppam waaw am na dëkk boo xam ne mu ngi ci Sénégal ñu ngi ko tuddee Madian mu ne kaana hunaka nabi ci côté pap côté yaayam maanaam sànq li doon wax côté papaam la soo ñëwee ci côté yaayam ñu ne la luut mooy maamam côté boobu soo ñëwee ci côté papaam ñu ne la Ibrahima mooy maamam kon su fekkee te ne ñaari riwaaye yi wér na kon danañ fekk côté papaam yonent mooy maamam côté yaayam yonent mooy yonent mooy maamam côté papaam kan mooy maamam Ibrahima côté yaayam kan mooy papaam Luut mooy ya mooy mooy maamam kaana hunaka nabiyun karim ismuhu Shuayb alayhi salaam kaana yaisu fi ardin ismuha madian nee na bu ñu jàngee taarix danañ fekk am na yonent boo xam ne mu ngi tudd Shuayb moom mi ngi doon dund dëkk bu tudd madian fa la ko yàlla yónni woon moom mi ngi bokk ci famille Shuayb alayhi salaam min zurriyati madian ahadu awlaadi ibrahim alayhi salaam wa ummuhu bintu lut dañ fekk ne moom Shuaybu alayhi salaam dafa bokk ci njabootu Ibrahim ndax doomu ibrahim bu tudd madiyan mooy maamam ci côté yaayam doomu luut surtout luut la côté yaayam moom luut moom soayib alayhi salaam waqad baasahu baada luut yàlla nga ko yónni ginnaaw yonent yàlla luut luut dafa dee yàlla daal di yónni soayib gis ngeen yonent yi bi ñu commencé ban yonent lañ tàmbalee woon Adama ba Adama demee yàlla yónni keneen kooku dem yàlla yónni keneen kooku dem yàlla yónni keneen ba barki démb lañ pare luut gis ngeen luut nekkatu fi yàlla yónni beneen yonent bu tudd Shuaybu yàlla nga ko yó- yónni dëkk bu tudd waxuma Madina de Madiyan wa qawmu luutin lan mooy lan mooy tegtal buy wane ni yàlla yónni na Shuaybu ginnaaw yonent yàlla luut lan mooy dalil bi mooy ci Qur'an ci suratu Hud aaya 89 yàlla mu ne wa ma qawmu luutin minkum bi baid keroog ba yàlla di alak nitu Shuayb bu yii xam nga lu mu leen wax daf leen ne yéen lii waru leen woon dal lu tax waru leen woon dal mooy nitu luut yi démb la leen yàlla alak te nitu luut yi yéen ak ñoom sorantewu leen te nit bu ko yàlla alakee sa kanam ngay xool di dund gis li ko dal loolu war na laa dal fekkee borom xel nga ah est-ce que loolu war na laa dal moo de yàlla ne leen wa ma qawmu luutin minkum bi baid yéen nitu soyi ñu ne ah ah yàlla ne nitu di sori wuñu leen de yéen a ngi dégg yéen a ngi romb di romb bu ngeen di tukki ngeen romb gis trace yi li leen yàlla mbugale trace yaa ngi nii léegi dara nëbboogu ngeen di dof dof di jaar fa nitu di jaar fa yéen it moo de yàlla ne leen wa ma qawmu luutin minkum bi baid waaye wa qabla risalati Musa kon Shuaybu mi ngi nekk diggante Luut ak Musa diggante Luut ak Musa la ko yàlla yónni Luut dafa jóge fi yàlla yónni ko Musa ñëwagul yàlla yónni Shuaybu lianna allaha taala lamma zakara nuuhan summa huud summa saalihan summa luut summa Shuayban ci alquran yàlla di nettali histoire yonent yi may wax yàlla waxee nuux kan la ci teg huut la ci teg bi yàlla waxee huut kan la ci teg bi yàlla waxee huut kum ci teg saalix bi yàlla waxee saalix kum ci teg luut bi yàlla waxee luut kum ci teg mbokk yi soyibu mbokk yi yeewu leen maanaam bu mu ne ngeen am xisul ambiya xisul ambiya yi waratu leen a réer lu ñu leen laaj war ngeen a tontu nee na bi Shuaybu demee aqaba zalika summa baasna min baadihim Muusa bi ayatina ila firawna wa malayi bi Shuaybu demee la yàlla yu doog a yónni yonent yàlla Muusa kon gis ngeen yonent yi dañoo toppante ku dem keneen ñëw ku dem keneen ñëw ba ñu nekk 124 000 yonent yàlla di ko yónni ci kaw suuf pour nit ñi baax pour nit ñi nañu baax pour nit ñi nañu xam lan la yàlla bëgg taxaw ci pour nit ñi nañu xam lan la yàlla tere ñu sori ko loolu moo tax yonent yi ñëw yonent yi indiwuñ seen bopp de yàlla moo leen yónni pour lan su tax yàlla yónni yonent yi pour nit ñi baax xam li yàlla bëgg ñu taxaw ci jaamu yàlla mais maanaam sax gis ngeen nit ñi tey topp ñu njàngale yonent yi seen i bànneex lañ topp ak seen i bëgg-bëgg topp ak ay nit yoo xam ne ay réeralaatekat lañ seen i intérêt moo leen yitteel waaye diine li tey yitteel leen dundee diine moo leen intéressé mais dundal diine ñoru leen du benn de du benn dundal diine ak dundee diine du benn xam nga dégg ngeen olof xaw ma فدل على أن شعيبا كان من قبل زمن موسى وهارون عليه السلام bu ñu tënkoo ci aaya yi ci tegtal yi danañ fekk ne Shuaybu yàlla yónni na ko avant Muusa ak Haaruna ndax Muusa ak Haaruna ay mag ak rakk lañ ñoom ñaar avant ñuy ñëw la yàlla tànnoon it benn yonent bu tudd yonent bu tudd Soayibu daal di koy yónni kaana ahlul madiyan qawman araban yaskununa madinatahum madiyan
dafa am yonent yi yàlla yónni yëpp ñaata lañ wax naa ko sànq ñeenti ñoo ci arab ñeenti yonent ñoo ci arab ñu ci des ñëpp duñu ay arab ñeenti ñooñu nekk arab ñan ak ñan la pourtant passé na fi pourtant jàll na fi ci qisasul anbiya ñeenti yonent yi nekk arab arab ñeent Ibrahima du arab Soayibu bi ci la bokk kenn la ci ñeenti ñooñu man kay dootuma jaar man pare naa ci yéen ñi ci des de pare naa ci ma ni pare naa ci comme yéen du ngeen jàpp ñeenti yonent la yàlla yónni ñu nekk arab bu ñu paree ngeen dem gëstu ji ko koo xam rek dama fekk ci kaw dina am lu ma ko jox kenn kaa ngi ni mooy Soayibu kon ñaataa des ñett da ngeen ngeen ñett yi kan ak kan la Soayibu arab la woon yaskununa madinatahum ñu ngi dëkkoon seen dëkk bu tudd madiyan allati hiya qaribatun min ardi maan min atrafi sham su ngeen demee dëkk bu tudd sham ci côté beneen bi fala madiyan
madiyan
lu jege woon dëkk bu tudd saam la mi ngi nekk ci côté Hijaz diggante Hijaz ak saam ci diggante bi la dëkk bu tudd Madiyan nekk qariban min buhayrati qawmi luut lu jege woon la dex gi nga xam ne nitu luut yi fa lañ daan noo naane ndox dëkk Madiyan dafa jege woon lool loolu moo tax gis ngeen nitu luut yi nitu nitu Soayib bu ñu doon tukki yàlla ne leen wa ma qawmu luutim minkum bi bàyyi yéen kat nitu luut yi soriwuñ leen yéen a ngi nii jege leen gis ngeen gis ngeen alquran loolu moo leen di wan ne mbokk yi alquran dëgg la dëgg la wax yàlla yaa wax yàlla tabaraka wa taala la
wa madiyan qabilatun urifat bihim wa hum min bani madiyan ibnu madiyan ibnu ibrahim al mu ne famille boobu nga xam ne ñoom ñooy waa madiyan ñu ñu xam lañ ndax dañoo bokk ci doomu madiyan ibnu madiyan souvent dañuy jël benn dëkk ci dëkk benn nit comme Afrique Afrique turu nit la mais tey boo déggee tubaab bi di ko wax da nga yaakaar ne tubaab yi ñoo créé Afrique ifriqiya la mi ngi jóge ci benn doomu aadama am na dëkk yu bare bare bare bare ci àddina bi ay turu nit la gis ngeen Saoudia nit la turu nit la day jël turu maam maam mi maam boobu nga xam ne moo sos dëkk bi ñu tuddee ko dëkk léegi doom yi bu ñu ñëwee daal di jël tur boobu daal di koy tuddee kaana ahlu madiyan kufaar yaqta'uuna as-sabil wa yuxiifuuna almaar wa yacbuduuna al ayka wa hiya alshajara min al ayka xawlaha taydun mutaallifatun biha waaye xam ngeen lan moo doy waar mooy waa madiyan kan mooy seen maam madiyan ki seen maam ibrahim kon ñoom ay lan lañ waroon nekk jullit waaye ay yéeféer lañ gis nga de ibrahima mooy seen maam waaye ay yéeféer lañ xam ngeen lan moo doon seen métier métier ay agresseur lañ woon agresseur mooy koo xam ne agresseur mooy koo xam ne déedéet kii jël bu fekk moom mooy sàcc agresseur mooy kuy dab nit ñi yor jaaseem wala fitalam wala ñëw teg ko sa put wala mu tóor la ko ci li nga yor dem na moom agresseur waa Madiane ay agresseur lañu ñoo nekk ci mbedd yi rek ku mu gis rek dóor la rek jël li nga yor
waaye waaye xiifuun almaar ku daan romb rek dañ lay tiital waaw di la napp waaye xam nga lan la doon jaam benn garab benn garab lañ doon garab moo doon seen yàlla benn garab benn garab gu nganda nganda nganda sax ci digg dëkk bi moom lañ doon jaamu wër di ko wër buñ xëyee rek di ko wër di màggal garab gi di ko raay di ko ziyaare di ko raay di ko def seen kanam pourtant loolu am na Sénégal ay nit yuy jaamu ay garab ak ay nit yuy jaamu karo karo karo ñun karo karo yi ñuy karo day gis kuy raay karo ay nit yuy jaamu bàmmeel ay nit yuy jaamu déw ay nit yuy jaamu ndox ay nit yuy jaamu lam lam lam weñ ay nit yuy jaamu pikaaw est-ce que fii sax ci jàkka ji amul ko tax ay nit yuy jaamu lool ñoom xam ngeen dañu jaamu al ayka garab ya sajara garab gu ngànd la kaanu min aswa innaas muamala buñ daan jëflanteeg nit ñi jëflante bu ñaaw la ñuy jëflanteeg ñoom amuñu jëflante bu rafet diggante ñaari nit bu ñuy jëflante jëflante bu bon la ñuy jëflante xamuñu jëflante bu rafet ñoom nitu soayib yabxasuuna almikyaal wal misaan bokkoon na ci seen musiba yi leen yàlla nattoo ay commerçant lañu woon waaye buñ doon jaay dañuy wàññi balance yi wala ñu wàññi nattukaay yi mooy ni sunu maire yi di def tey bu ñuy jaay gerte dañuy jël këyit dugal ko ci biir kaas bi ba kaas bi digg ñu jël gerte gi ci kaw daal di teg tuuti ne la ñaay nañ la fukki dërëm la wala ñu jël juróomi mango def ko ci benn paan ne leen paanu mango paanu mango fekk juróomi mango ñu nekk ci kaw nga jënd ndeke juróomi wala bu dee nattukaay bi ñu noral ko ci suuf ñu noral ko ba mu ba mu kawe ci biir nga defe ne mat na fekk matul jàngeen waylun waylun lil mutaffifin alladina hum ala nnaas yastaw wa iza kaaluhum awazanuhum يفصلون yàlla ne ala yazunnu ulaika annahum مبعوثون li yawmin عظيم
yàlla nee na xurwa ca safara safara xam ngeen safara benn kàmbu teen la waaye ci biir dafa am benn xur benn xur ba pare ci biir safara yàlla gasaat ko beneen kundi ñu ne yàlla lii loo koy doyee mu ne ñiy natt di ko wàññi ak di peese blanche bi dañ ko matal ñoom laa fay dugal nitu Suayb nag ñoom loolu lañ doon liggéey mooy dañ daan natt wa yutaffifuuna fiiha fiihima léegi dañ ko daan manqueel buñ ko jëmale ci seen bopp matal ko suñ la koy jox yow daal di koy manqueel wa yaaxuduuna bizaidi buñ la jaayee ba pare wala ñoom buñ jëndee ci yow ba pare daal di ciy tibb dank def ci seen pot ne la lii moom wis la bu koy wis fal force gis ngeen gis ngeen xam nga am na ñoo xam ne ñu dem fi jënd gerte ba pare maire bi jaayeen gerte ba pare ñu daal di coppati ne maire wis waay loolu baaxul dafa xaram ñoom dañ daan jël loolu ñoom nitu soayibu wa yadfauna binnaqs binnaaqisi nanguwuñu woon ñoom seen côté mbir mi manqué waaye côté keneen nangu nañ mbir mi manqué fa kaanu fawqa zalika yaqta'uuna altariq wa yuxiifuuna almaar wa yurhibuunahum waaye lii yëpp gis nga li muy grave grave dencoon nañ encore yeneen banditisme mooy dañ daan dogaale dogaale xam ngeen dogaale bàyyi ba xam ngeen fii léegi diggante fii ak fii dafa xaw a lëndëm ñu bàyyi ba nga dugg ci lëndëm gi rek ñu ko jël dañ daan dogaale di tiital ñiy romb di leen terroriser ba léegi comme liñ xew Sénégal rek nga xam ne dañoo terroriser nit ñi ba léegi nit ñi ñëwatuñu génn ku dem sax da ngay gis soo génnee rek da ngay gis dajale woto foo nekk bul ko téye teelal a ñëw booy dox guddi bul yor saak nangam nangam bul jaar yoon wi jàngaral nii terroriser nit ñi ba kenn nekkatul en paix comme li am tey suñu réew mi rek ñun mbaa duñu ay sëtu soo nitu soo ay buy lañ ah fa baasa bi loolu amee ba mbir mi lëndëm fa baasa allahu fihim rajulan minhum wa huwa rasulullahi soayibu alayhi salaam xam nga yàlla balaa muy yónni yonent rek mbir mi lëndëm mbir mi yàqu yàlla balaa mu yónni yonent day bàyyi ba nit ñi yàqu xamatuñu fu ñu jëm xamatuñu yàlla xamatuñu diine yàlla yónni ci ñoom waa ju baax yonent nitu soay bi tamit bi ñu demee ba yàqu nekk nit ñu bon nekk ay agresseur nekk ay bandi di jaamu xërëm di bokkaale di naan sàngara di njaaloo di sol lu bon topp musique topp bëre topp sàngara topp cigarette topp yàlla daal di yónni Suayb ne ko demal nga génne leen ci loolu demal nga waar leen nga wax leen ñu ragal yàlla Suayb bu ñëw na fa daahum ila ibadatillahi bu ñëwee li mu njëkk a def mooy woo leen ci jaamu yàlla wax na bu yàlla kenn mu tere leen bokkaale la sharika lahu mu ne leen yàlla kenn du ko bokkaale yàlla kenn du ko dendale kenn wala leen kenn du wax yàlla ak bu neexee yàlla ak yow bu neexee yàlla ak diw loolu kenn du ko wax mu tere leen loolu wa nahahum an taati haasihi l afail alqabiha mu ne leen bàyyi leen agressé bàyyi leen sàcc bàyyi leen natt di ko wàññi bàyyi leen peese di ko lépp lu bon lu ñuy def lu bon mu tere leen te bàyyi leen loolu min baxsi naasi asiyaahum ci manquel yi fu nit ñi wa ixtifaihim lahum fi sulbihim wa triqaatihim di këf yi fu nit ñi di agressé ah yàlla daal leen koy tere soyibu daal leen koy yàlla yónni soyibu soyibu daal leen koy tere fa amana bihi baat ah am ci dëkk ba ñoo xam ne nangu nañ danañ ko wallaay yow si soyibu li nga wax dëgg la yow yàlla la yónni kon ñun nangu nañ li nga wax waaye wa kafara akasaru li ëpp ci ñoom ne waay goo waay waaw yow mënoo ñu tere lii ñun dañ koy def ndax dañoo fekk sunuy maam di ko def ñun lii mënoo fexe ba ñu bàyyi ko inna wajadna abaana ala umma wa inna ala asaar ñun fekk nañ sunuy papa di takk ay lam di meesu di xeesal di wër ay bàmmeel di yuuxu kon ñun dañ koy def mënoo fexe ba ñu bàyyi ko nag fu la neex nga dem nag ku la neex nga woo nag mënoo fexe ba ñu bàyyi ko ah ah gars yi di ko yuuxu nag di ko arsal yonent la de waaye gars yi nee nañ ko lii yàlla yónni la suñu yónni ku ci defuñu ko ñeneen ñi ne ah ñun de ñun nangu nañ ragal nañ yàlla ñun ñun dañ koy def kon dëkk ba léegi ñaata xaaj lañ xaaj ñaata xaaj ñaata xaaj ñaar ñii nangu nañ ñii bañ nañ allahu akbar ñaari xaaj ñaari équipe équipe yàlla ak équipe seytaan fa amana bihi baat wa kafara aksaruhum waaye nag ñi nangu
waaye ñi bañ la
dañoo bëri gis ngeen de chaque jour noonu la dëkk boo demee rek ñi baax ñi dañoo tuuti ñu bon ñi ñooy ñooy ëpp wa kafara aksaruhum hatta ahalla allahu bihim alba'sa alshadid wa huwa alwaliyu alhamid ba ñu lànkee allah subhanahu wa taala daal leen di mbugal mbugal mu métti moom yàlla xam ngeen ko
lépp mooy boroom yàlla mu ëpp doole ñëpp yàlla mën lépp yàlla mooy boroom ñëpp ak lépp waaye soayibu bi mu ñëwee mbokk yi daawatu soayibu ila tawxid soayibu bi mu ñëwee li mu njëkk a woote mooy tawxid tawxid mooy lan mooy wéetal yàlla très bien mooy kennal yàlla wéetal yàlla mooy lan mooy ñu def yàlla kenn bu ñu ko dendaleeg lenn wala kenn jullit saa yoo dendalee yàlla ak kenn wala lenn rek yow nekkatoo jullit léegi nan nga tudd mushrik tuddatoo tuddatoo jullit de léegi xam nga beneen tur nga am tur ba mooy lan mushrik mooy kuy bokkaale yàlla kuy dendale yàlla ak lenn léegi tuddatoo muslim léegi mushrik nga tudd وعلى الرغم من أن قوم مدين وقعوا في مخالفات كثيرة إلا أن شعيبا عليه السلام بدأ معهم بأهم بأهم gis ngeen Suayb mbokk yi ci li mbokkam mi bi mu ñëwee lim fekk ñuy def yëpp ay jëf yu bon naan sàngara agressé wàññi place yi ah fekk na ñuy def yu bon yu baree bari waaye bi mu ñëwee fan la tàmbalee fi ëpp importance fan moo ëpp importance mooy bokkaale qadiyatul kawnu kullihi te mooy gis ngeen problème bi su ay fekkee fekkee nitam yi mooy problème mu adduna bi tey xam ngeen adduna bi luy problème xam ngeen kan moo xam tey adduna bi luy problème am bokkaale loolu mooy problème mu adduna bi adduna bi nanguwuñu wéetal yàlla ñu nangu di bokkaale rek loolu moo tax moo tax moom bi mu ñëwee li mu tàmbale muy wéetal yàlla ala wa hiya qadiyatu tawxid gis ngeen soay bu mu ñëwee li mu waaraate njëkk a wax mooy wéetal leen yàlla xam nga lu tax nit ñi chaque jour bu ñu leen di wax ñu wax leen yàlla xam ngeen lu tax nit ñi bu ñu xamee yàlla rek yëf baax tey Sénégal bu ñu gëmoon yàlla xam yàlla fi nekk nekk nit bi Sénégal chaque jour ñu ngi ci programme bu bees fan yi moom lu xew mooy jazz moo xew bu ñu demee fii ak trois jours ñu indiwaat leneen bis bu nekk Sénégal am na lu xew bis bu nekk xam nga lu ko waral xamuñu yàlla ragaluñu yàlla gëmuñu yàlla xamuñu kuy yàlla loolu moo tax yonent bu yàlla mos a yónni soo ñëwee problème bi gën a rëy mooy fexe ba nit ñi xam yàlla na nit ñi xam yàlla nit ñi xamee yàlla kon kenn dootul rey kenn kenn dootul tooñ kenn jàmm mooy nekk ci àdduna bi jàmm mooy nekk ci biir kër yi jàmm mooy nekk ci dëkk bi jàmm mooy nekk fépp waaye nit ñi dañoo xamul yàlla so ay bi mu ñëwee lu mu njëkk a def mooy régler problème mu tawxiid ak aqida mooy pas-pas chaque jour ngeen dégg pas-pas xam ngeen lu tax ñu tuddee ko pas-pas mooy ci xol lay nekk nga takk ko sa biir xol ba mu dëgër moo tax ñu ne fas-fas nit ki li mu fas ci xolam su fekkee du yàlla rek musiba la moo tax ngeen dégg fas-fas jàng ngeen baat boobu ci benn saar chaque jour ngeen jàng ko wa min shari nafathaati al uqad mooy al aqida mooy pas-pas kuy fas fasal lu baax bis boo fasee lu bon musiba gis nga Sénégal bokk na ci seen fas xëy suba sotti ndox ngeen ban fas-fas lañ ci am mooy ndox dafa sedd kon sama journée bi yëpp ci lu sedd laay nekk ci jàmm laay nekk moo tax chaque jour ñu sotti ndox sotti ndox ci oto yi sotti ndox ci moto yi sotti ndox ci place yi ñuy jaayee sotti ndox sotti ndox ñu defa leen ndox day maye jàmm ñaata nit la ndox toxal ñaata nit la ndox labal ñaata nit la ndox rey ñaata nit la ndox toxal seen kër laa wax ñaata gis nga de cheikh bi nee na chaque jour mu gis jigéen buy sotti ndox buntu këram waaye dara ko dara ndax de bu sottee ba pare bu bëccëgee mu ñëw ne ko may ma dépense kon kay ndox du maye dara kan mooy jàmm mooy allahu subhanahu wa taala soo sëlmalee ci jub nga ne allahumma anta salaam wa minka salaam wa tabarakta ya zal jalali wal ikram nga ne yàlla yow yaay jàmm jàmm ci yow la jóge kenn du am jàmm ku dul koo jàmmal yow yàlla yàlla nag ma jàmmal daa jël ndox jël ay gàllaaj jël ay saafara sangu raay diwu def lu ne dara yàlla rek soo ay bu ñëwee mbokk yi lu njëkk a def mooy fexe fexe fexe gaa yi am taw fexe gaa yi xam yàlla subhanahu wa taala fexe gaa yi pas-pas bi fii yàlla rek gis ngeen ma wal leen beneen gis ngeen bëri bëri bëri est-ce que gëm nañ yàlla gis ngeen nit ñi gàllaajoo est-ce que mës ngeen koo xam ne man man du ma takk dara du ma naan du ma sotteeku du ma diw ñoom ñëpp ñuy def dañuy bokkaale moo tax bëre dafa xaraam baaxul ndax bokkaale lay def léegi kon mbokk yi fal aqida pas-pas moom lañu war a njëkk a yar ci jullit moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na boo amee doom bu commencé di wax jàng nga ko dee ko wax dee jàpp ci mbagg yi naan ko laa ilaha illa allah di ko naxe baat boobu waaye ñun bu ñu amee doom lu ñu koy jàng bu commencé mën a wax ku ko ku ko xool nga ni ko nee ko duu mu ne duu ii dégg nga la muy wax muy commencé di saaga nit ñi ku ko xool rek nga ni nee ko duu mu ne duu loolu saaga la loolu musiba la kenn du jàngal xale lu bon léegi nag xale bi bu màggee loolu du am pas-pas bu baax mbokk yi li ann allaha yaxfiru zunuba jamian ma ada shirk gis ngeen lu tax chaque jour yonent yi bu ñu ñëwee di tàmbale ci taw yi xam ngeen lu tax ndax bokkaale yàlla du ko baale te yàlla dina baale leneen dul bokkaale yàlla dina ko baale waaye bokkaale yàlla du ko baale kon loolu nit ñi dañ ko war a xam ne mooy li yàlla dul baalaati mbir mi yàlla du ko baale loolu nit ñi war nañ ko xam sàcc yàlla da koy baale ten cëw rambaaj njaalo yooyu li muy garaaw garaaw yàlla mun na la kaa baale waaye bokkaale loolu moo tax nit ñi ñu war koo jàngal nit ñi ñu xam ko ñu wattandiku loolu moo tax yonent yi bu leen yàlla yónnee ñuy tàmbali ci faj feebar bu bon boobu di bokkaale pour mu jóge fi kaana la budda déedéet da ngay wax allahuma salli soo ñaanee pare nga wax al au lieu nga ni barke nga ni allahuma salli ala muhammad nga julli ci yonent bi salaatu ala nabi ngay def soo ñaanatee ba pare nga def salaatu ala nabi salaatu ala nabi ci ñaan waaw mooy lettre bu am timbre allahuma salli ala muhammad waaw pare ñu bindal la ko incha allah li mu laaj ni mooy ñaan ñaan ni mu mel ñaan ñaan ni mu mel salaatu ala nabi nu mu mel ci ñaan mooy lettre bu am timbre lettre bu amul timbre du dem boo demee ba pos nga jël lettre bi dugal lettre bi du dem mais bu amee timbre ñu kasete ko lettre bi lay dem ba ki nga ko yónnee moo tax ñu ne boo ñaanee buy tëj ñaan bi jullil ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na fa kaana la budda min an yunqizahu min alshirki awalan suma yantaqilu ila marhalati oxra fa yanhahum an sairi almuxaalafat allati yaqauna fiha soayibu bi mu ñëwee programme bi ko yàlla njëkk jox mooy soayibu fexeel ba waa madiya bàyyi bokkaale suñu bàyyee bokkaale nga doog leen wax keese balance yi na mag dañu bàyyi sàngara si dañu bàyyi agressé ndax nit soo ko waxee yàlla ba mu nangul yàlla rek day nangul leneen gis nga saa yu gisee waa ji mu yeewu fajar di ñëw jàkk yeewu fajar di ñëw jàkk tisbaar mu ñëw tim tis tàkkusaan mu ñëw timis mu ñëw gée mu ñëw chaque jour nga koy gis bis boo xëyee ne ko ah yàlla nee na dinaa ma wax nan lañ koy defee nga ni ko ni lañ koy defee rek daal di jël gis bu nangulee yàlla bu nangulee yàlla rek ba yàlla nekk ci xelam ak xolam soo ko nee yàlla nee na mun na la wax nga waaye bu nangulul yàlla ah nga fekk ko fi stade bi muy daw yor balam nga dem ne ko ah boo demee ci xërëm yi tamit du tax nga gañe danaan man damay dem sëñ bi ñun ñoo fexe ba pour ñu am coupe bi foog ñu xërëm sénégalais tey boo jëloon benn waaye nga fal ko dara rek balaa muy dugg ci bureau bi foog mu xërëm ba pare benn waaye dañ ko fal ndeysaan mu ne mu woo ma mu ne ma dama bëgg nga ñëw ñaanal ma ma ñëw man ko bismillah dama nga jàpp mu jàpp ma ne ko nañ julli ñaanal yàlla ba pare ma ne ko nañ ñaan yàlla ñu ñaan ba pare gaa ne mu ne ma jeex na ma ne ko jeex na mu ne ah sa sa ñaan xërëm na de xalal xoyof de ñu war a gasak toj toj bi ma ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo amee soxla demal nga jàpp nga julli ñaari raak nga ñaari yàlla jeex ah waaw xaar ma jàpp ci rek gëm bés bi dafa mais moo ko defoon dama nguur nag bu ñuul kooku kon bijjën yu ngand nga bàyyi ba trois heures du matin nga tekku yaramu neen nga diw doomu daal macha allah parce que nit ñu bon ñi dañoo bon da nga da nga da nga dëkk dul yàlla ay nag lañ gëm ak ay deret ak ay xamboog musiba rek moo tax musiba rek moo leen di dal musiba rek moo leen di dal Sénégal gëmuñu yàlla gëmuñu yàlla gëmuñu yonent
mbokk yi Soaybu yàlla yónni na ko
sourate Araf aya 85
yàlla mu ne wa ila madyana أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره bis ni ki tey Shuaybu nekk na yonent yàlla yónni na ko ci dëkk bu tudd Madiyan mu commencé waaraate mu ne yéen nit ñi jaamu leen yàlla ibudullah gis ngeen yàlla yonent bu mu jë bu musu yónni rek bu ñëwee lu muy wax jaamu leen yàlla amu leen benn yàlla bu ngeen war a jaamu kurul yàlla ibudullah ma lakum min ilahi xëyruhu yonent amul benn yonent bu yàlla mos a yónni bu ñëw naan man jaamu leen ma man man topp leen ma man man mii man yonent bi man de man na ngeen ma jaamu déedéet yonent bu ñëw lu muy wax jaamu leen yàlla amul benn yonent bu yàlla yónni mu ne na ngeen ma jaamu man gis ngeen moo tax yonent yi ñoom kenn jaamuwu leen waaye kan la ñuy jaamu yàlla subhanahu wa taala mbokk yi xam ngeen lu tax soay bu tàmbalee ci tawxid bi fa tawxidu huwa al asl fa tawxidu huwa aslul usuli mooy cosaanu cosaan yi tawxid aslul usuli wa huwa alladi jaa bihi kullu al-anbiyaai wa rusul moom tawhid mboolem yonent yi mboolem yonent yi tawhid la da huwa alladi jaa bihi rusul jaa bihi kullu al-anbiyaai wa rusul yonent yi ak ñi yàlla yónni ñëpp lan mooy seen diine yonent yi ak ñi yàlla yónni luy seen diine yonent yi ak ñi yàlla yónni lan mooy seen diine lan la leen yàlla yónni lan la leen yàlla jox tawxiid mooy nit ñi nañ kennal yàlla fal wazifatu rusul wal anbiya an yubada annaasa lillahi azza wa jal mission wu yonent yi fonction wu yonent yi mooy nit ñi nañu jaamu yàlla kese bu ñu jaamu leneen lu dul yàlla loolu sahaaba bu tudd robay ibnu amir wax na ko benn buur ca pa ca Perse buur bu tudd Rustum benn général bu tudd Rustum keroog ba Amir ñëwee fekk Rustum ñu ngi ko teg ci pilier or ñu ngi ko sas lalal tapis rouge ñu ngi ko garde ba weñ ñemewu ko laal garde koor yi dañ ko garde ba weñ yi ñemewu ñoo tag ci kawam weñ ñi naam laa wax de ñoom ñu laal buur bi ndax niñ ko gaare kooku am na doole wala amul doole amir na tëll mu ne ko xoolal ndey joor mu xool gis ñu yor ay flèche kese ñoo fu nekk mu ne xoolal càmmoñ mu xool gis ñu yor ay jaasi kese mu ne ko xoolal sama ginnaaw mu xool gis ñu yor ay xeej kese mu ne ko xoolal côté bi mu gis ñu yor bu kenn xamul ñoo fi nekk ay sirmi ak ay kopp lan la toxoon mu koy won loolu waa ji tiit te benn nit la de dañ ko yónni bi muy ñëw tubéy jaa ngi gàtt yére baa ngi gàtt mu ngi war mbaam mu ngi yor benn bant comme xeej la mel mu ne ko kan moo leen yónni mu ne ko nahnu qawmun ibtaasana allahu li nuxrija al ibad min ibadati al ibad ila rabbi al ibad wa min jawri l adyan ila adili l islam wa min diqi dunia ila siati l axira waaye fu ngeen jóge mu ne ko ñun ay nit lañ yoo xam ne yàlla moo ñu yónni pour ñu génne nit ñi ci jaamu gi ñuy jaamu nit seen morom pour ñu jaamu yàlla yàlla moo ñu yónni pour ñu génne nit ñi ci jaamu gi ñuy jaamu seen morom yi jaamu yàlla mu ne ko ak lan mu ne pour ñu génne leen ci àdduna bu xat bi ba yéen àdduna bi ngeen dund dafa xat ci yéen leen ci àllaaxira gu yaatu gale adduna dafa xat adduna ak a xat alaxira mooy lu yaatu adduna dafa xat mbokk yi lépp xat ci ñun bool bi ñuy lekk sax dafa xat lal bi ñuy tëdd dafa xat duusi sax dafa xat gis nga Sénégal kenn ku nekk ku fi am sax de ku fi am sax moo fi xaw a yaatu moom la ñuy daggal 15 sur 10 15 sur 10 dañ lay daggal 15 sur 10 te 15 sur 10 bi yëpp doo tëdd fépp de néeg bi ñaata mètre la 3 mètres est-ce que néeg bi da ngay tëdd fépp lal bi double li la est-ce que lal bi da ngay tëdd fépp man la bi da ngay tëdd fépp mbàjj bi sax doo sàngoo lépp njaganaay bi sax sa bopp bi benn partie la ciy tegu lal bi sa yaram bi benn partie la ciy tegu saxaaba bi ne waa ji dañoo ñëw pour génne leen ci àdduna gu xat gi yóbbu leen ci àllaaxira gu yàq gële mu ne ko bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag saxaaba bi rocc jaasi ji ne ko kii mooy nekk suñu diggante ak yéen kii rek mooy nekk suñu diggante xoolal ak gis na arme bi de gis na arme bi gis na soldaar yi gis na arme yi ñor gis na ni ñu bëree mais waa ji ne ko baax bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag mu génn jaaseem ne ko su boobaa de wax dootul am lu dul kii rek mooy nekk suñu diggante ak yéen waa ji ne ko waayow kii xanaa yaay seet gaa yi mu ne ko maa ngi gën a yàmbare xataa laa ilaha illa allah cey bu gisoon xaalid ibnul walid mu ne ko waaw may ñu benn temps ñu waxtaan après ñu xool na lañ def dama na nga ñibbi ñooñu xam lu taxoon ragaluñu kenn li buur bi di ngand ngand li muy am ay soldaar moom gisul buur bi xam nga kan la gis allah ñun nag te gisuñu yàlla ñun kii rek la gis kii kii nu mu tudd Sénégal kii rek la gis moo tax léegi ngor amatul jom amatul diine amatul fulla amatul faayida amatul soo ne woon benn waaye léegi demal àll ba nga lekk ko ma jox la cinq mille mu ne xaaral deux minutes utal ma pot ah gis ngeen jigéen ñi li leen di def loo gis ngeen jigéen ñi li leen di def loo cinq mille sax bëri na xoolal ko jigéen yi xoolal góor jigéen yi lan la góor jigéen lu tax nit nekkul jigéen lu tax nit di jaay boppam lu tax nit rey nit
nit gàddu jaasi fekk sa mbokkum julit ne nga mu daanu fekk portable bi rek moo tax te portable bi mun na jar sax 5000 tey fii la ñuy yem insha allah ba àllarba